dañoo amoon benn terrain fii bu ñu euh, le ministre Abdoulaye Matar joxoon. ñu aménagé ko woon doon ci football léegi yàlla def ba état bi di aménagé fii pour def fi arène nationale man si sama bopp le sous-préfet de Pikine moo ma convoqué mu a ma état bi day def fi arène nationale am na ñoo xamante ne dañoo contre kii wu arène bi mais yéen ASC yi fa ne bu ñu dégg kenn bokk si manifestant manifestant yi ndax état bi prévoir na bu tabaxee arène bi jox leen terrain. Manako ne d'accord léegi ñu euh, quelques mois après une semaine avant kii di ñëw Mbagnick Ndiaye di ministre bi pour ñu préparer terrassement bi le commissaire de Pikine woo ma Sen, Sène moom it mu ma la même chose ne ma bu ñu bokk ci manifestant yi manifester foofu ñu ne waaw d'accord l'essentiel boo leen pare ngeen jox suñu terrain ñun toog nañu ba arène bi pare kenn joxuñu terrain xam nga léegi dañuy xaar état na retiré baayam jox ñu sunu terrain wala mu aménager feneen jox ñu sunu terrain mais ñun sunu terrain dañ soxla loolu moo ñu fi boobu ba léegi nag ñu ngi may convoqué DSCOS semaine ngi nii ma fay jaabante chaque jour. léegi commandant bi nee na rapport am la war a def pour yóbbu ko kii bi ndax affaire bi soit transmis la pour mu yóbbu ko procureur pour ñu wax ci affaire terrain bi Pape Ndiaye nee na dafay am baay sunu jeunes yi kaal ñëpp a ngi kenn amul foo footballé géej la ñuy dem di foo footballé ah année yii yëpp ay quart de finale la tooge toogee parce que manque de performance sunu rakk yi jàngee si CM yi fii amuñu fu ñuy defee EPS fii la ñuy ñëwee di def EPS kon nag ñu toog lu toll ni Pikine mënuñu am terrain de football lépp ñu bëgg a dagat dagatee yooyu ak yooyu c'est pas normal. Macky Sall fast track lay wax na fast track sunu dossier mu gaaw mu jox ñu sunu terrain ñu football ñun loolu la ñuy wax wala bu dul loolu ñun am nañu yeneen matuwaay yu nu bëgg a jël dinañu bloqué tali yi benn oto dootu fi jaar lamb bu fi naree am ñu dem ñu bloqué ko xam nga li loolu la ñuy wax. amuñu fu ñu kee Pikine amul espace surtout Pikine Nord nañ jàppale jeunesse bi.